moom kàngay na bu daal baax na. ah moo gënal moom moo ma gënal sax ma jël ko. oui maa moom benn lañ moom maay moom maay moom. lu ma nekk da si nekk man tam lu mu nekk ma nekk si. seen diggante mel ni jiitu na juddu. waaw waaw jiitu na suñu juddu. dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla defal jàmm.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 kon taxaw jar nañu taxaw xoolaat bu baax a baax suñu carrière mm-hmm. parce que tamit boo bëlee ñooñu kërti kërti kër war nañ mun a wane nañ suñu bopp bu baax a baax suñu carrière kenn tànn luñu ko waaw waaw boobu ba léegi maa ngi koy def sama combat sama carrière yëpp boobu ba léegi loolu laay def waaye day taan rek ma rek la sama combat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 di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm. mais moom neex bëre. bëgg bëre bañ bëre. waaw man maa ngi fi maa ngi fi pour làmb neexuma fi pour Modou Lo rek maa ngi fi pour làmb maa ngi ma Lo la ñuy bëreel waaw pour ñëpp pour ñëpp maa ngi pour ñëpp daal. Modou Lo la ñuy bëreel. mooy maa maa ngi waxoon si carte quatre ans quatre ans quatre ans ci ren nga bëri ci benn combat muy contre yaak Papa Sow yaa ngi sóoraale loolu man am naa benn at boo xam ne dama bëri trois combat lu mu kenn deful laa def. tamit yàlla suñu borom bu ma jaglee damay sant yàlla bu baax loolu la rek. Balla Gaye jël doomam tuddee ko Serigne Saliou loo ci. waaw dañuy kontaan kii. gannaaw bu ma sante yàlla julli si yéent bi dama sant sama ñaari waajur